lan mooy koor ci luga ak lan mooy koor ci istilah mooy bu ñu waxee luga mooy ci alangu arab la lay firi buñ ko waxee si istilah mooy jëfandikoo borom xam-xamu fiqh ci ñoom la lay firi jàng wax wax jàngale nañ ko bii passé tey nag ci la la ñuy dugg ak yéen mooy koor koor ñaata xaaj ñi demee wax ittafaqa على أن الصيام أربعة أقسام مذهب مالك مذهب الشافعي مذهب الإمام أحمد بن حنبل نم يبدكون أن كور ينتي خاجنا بنك بالله موي الصيام المفروض أمنا كور غو خمنا دينكو فرطال warna kep ku nek mukallaf rek kor gogu dafa war kor gogu nak moy ban kor moy kor liñ liñ nek ni moy wéru kor ni ramadan Euh, am na lu ñuy wax tamit kooru fay kooru ramadan bokk na ci kooru farata la moo xam nga koy joxe moo xam nga koy fay waxtu wi ñu nekk dañuy joxe koor gi mais ku ci amoon bor ba koor gi passé donc boo koy fay loolu xada fay boo koy joxe fay leen koy tuddee doon joxe bokk na ci siyaamul kafaara siyaamul kafaaraat mooy koor goo xam ne da koy def ngir kaafar bakkaar boo xam ne da nga ko defoon ka siyaamu kafaara nag mi ngi amee ci su fekkente ne nit ki dafa rey nit te tayu ko dafa rey nit te tayu ko parce que alxuraan dafa wax ne maa kaan li mumine wala muminati maa kaan li mumin an xataan mu ne alxuraan dafa wax ne kaan li muminin an yaqtula muminan illa xataan jullit daganul ci jullit muy rey moromu jullitam lu dul ci njuumte su fekkee nit nag dafa jot ak nit ñuy xeex ba bakkan faatoo ci te jublu ci woon pour rey ko su boobaa koo dafa am sanction bu koy teg dafa am atte bu ñu koy teg atte boobu moom la ñuy wax kafaara soit benn li ñuy njëkk sàkku ci moom mooy mu joxe diya diya mooy lan xaalis bi muy jël jox ko ay mbokkam su ko amul dañuy sàkku ci moom mu goreel jaam bu jigéen su ko mënul ñu ne kon na or na or ñaari weer yu toftaloo kooku la wax kafaara boobu ci la bokk bokk na ci timit ba tey kafaara mooy su fekkente ne nit ki dafa or weeru koor mu dem ba ci biir mu dagg ko te moo ko teg yonent yàlla Muhammad jamono am na ku ko defoon ba mu ko defee ñëw ci yonent yàlla Muhammad dana ko demal nga ñaari or ñaari ñaari weer te na nga ko toftale waa ji dem or weer mu jeex mu ne ko jeex na mu ko demal nga tegaat ci yeneen ñaar mu jeex mu ñëwaat mu ko demal tegaat ci yeneen ñaar mu ñëwaat mu ne ko demal nga tegaat ci yeneen ñaar waa ji noonu la doxalee dundam ba mu dee mu ne ko ah dem dee na waaye yóbbu na bàkkaar kon kon koor ku ko oo yonent bi dafa wax ne képp ku oo dog ci weeru koor mënoo ko fay boo ooree sa jamono yëpp kon loolu léegi nag su ko defee léegi nag borom xam-xam yombal yombal na lislaam yombal na ko mooy képp koo xam ne da ngaa dog ci or weeru koor te yaa tey lii nga koy fayee mooy da nga or ñaari weer wala nga leer juróom-benn fukki miskin wala nga goreel jàmm bokk na ci kooru kafaara ba tey mooy su fekk nit ki dafa gën ci lu mu xamut wala mu gën ci loo xam ba mu pare defu ko comme tey jabaram mu metti jabaram rek gëñ na ko danaa la fase boo defu nangam jabaram defu ko rek su boobaa te dafa dëggoon ci ngën bi su boobaa day dem mu kaafara ko ñu ngi koy kaafara dafay or fukki fan lay or dégg comme ni ko alxuraan wax kafaaratu asartu asartu asartu ay yaam lay or lay or fukki fan pour kaafara ngëñam kon loolu mooy kooru kafaara bokk na ci tamit ba tey kooru kafaara mooy nit su fekkee dafa dafa am dafa wax soxla soxnaam na ko dangaa mel dangaa mel ni ci man sama gannaaw ak yaay loolu la ñuy wax zihaar mooy ni ko def ak jabar ak zihaar boo demee ci noonu la amee ci suuf mu jàdd la mooy xawlate bi saala ba moom jëkkëram bu ñoom ñaar moo jabaram bañ amee problème euh, mu daal di jëkk jëkkëram daal di ko wax na ko dangaa mel sama gannaaw ak yaay te jamono jooju jamono jaay li ku ko wax rek sa jabar daf lay xaram ba ko jëkkëram waxee affaire bi métti ko lool mu dem ci yéen wax ko yéen ne ko ah léegi nag seen sëy bi jeex na di commencé discuter ak yonent bi discuter ak yàlla daal yàlla di wàcc ay na qad samia allahu qawla lati tujaadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila allahi wala yasmahu tahawurakuma inna allaha samiun basir mu ne ko kat yàlla dégg na jigéen ju doon dagg sànte ak yow ci mbiru jëkkëram waaye nag naa ko loolu wax ju ñaaw la rek képp koo ko wax sa jabar sa jabar taxul mu tas wax ju ñaaw la waaye nag képp ku ko wax war ngaa war ngaa war nga war ngaa teg daan daan lan balaa ngaa di balaa ngaa jote sa sa jëkkër balaa ngaa jote sa jabar da nga or li ñu xam li nga xam ne mooy ñaari weer yu toftaloo soo ko mënut nga goral jaam soo ko mënut nga leer juróom-ñett fukki miskin kon bokk na ci koor farata bokk na ci kooru farata yi mooy kooru kafaar bokk wa nuzur am na wax koor goo xam nit moo koy nisir mooy damay damay dama naan tey lundi danaa or wala mardi dana or loolu boo ko nisee da ko war a matal parce que alquran moo ne waliyuufu nuzuurahum na ngeen di matal seen nit yi dégg kon bokk na ci asiyaamu masnuun mooy koor boo xam ne ko sunnaal yéen tamit daana ni nga or bisu wala nga or bisu ashura mel noonu wala ay fukki fan ak juróom ci weeru chaban yooyu ba tey koor buñ na lu ñuy wax al kooru asiyaamu muharram koor boo xam ne dafa xaram daganul kenn di or mooy bisi feet yi mi ne bisu korité bu la leeral ne tey bisu bisu korité boo ko oree daganut wala bisu tabaski boo ko oree daganut wala ñetti fan yi nga xam ne ñoo topp ci bisu tabaski yooyu yëpp koor goo xam ne dañ ko xaramal am na koor goo dañ ko sib koor goo xam dañ ko sib mooy nga jàpp bisu àjjuma rek di ko or loolu sib nañ ko kon yi yi yi mooy xaaju koor yi ci mazhab Malik ci mazhab imam Shafi ci mazhab imam Ahmad ibn Hanbal danañ dugg ci mazhab imaamu euh, Abu Hanifa moom nan la ko gisee incha allah fi émission bi di ñëw asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu